nuyu nañ leen ziar leen comme ni ngeen ko xamee nag ak Leewtoo TV ah 100 pour cent làmb rek ngeen fay seetaan du mën a ñàkk waaye nag du mën a ñàkk mbëri def des fois day am benn dund bu ñuy bëgg dund boo xam ne du bokk ak ngemm du bokk ak njuub du bokk ak xam nga euh, dëkkante xëppante asib ak yooyu wala contact ak yooyu moo tax nag tey ñu am ay mbër yoo xam ne dafa am fu ñu leen fekk mbër yi nag ñu ngi dëkk diggante Malika ak Kër Massar ak yëmbal ak yooyu dañ leen di bàyyi dégg nañ leen micro ngeen dégg ñoom ba xam lan moo leen indi si plage yeeg yu mel ni kii noonu. naaj alhamdulilah. tey de da nga mel ni yaa ngi ci beneen dund tey. waaw sori nga làmb ja nga làmb. waaw wax dëgg yàlla ginnaaw ma ci sant yàlla jul cont bi. waaw di sant suñu ñaar woy ji di nuyu waa Sénégal di nuyu àdduna. waaw di nuyu diaspora bi. Mhm. di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee. Mhm. xam nga làmb dafa metti presque sept yoo xam ne yaa ngi ci àll bi sept yoo xam ne yaa ngi sangu xam nga ni ndox mii doo nekk ci ay compétition di ko sangoo. mais des fois nga ñëw laal ndox mii. xam nga da ciy baax. da ciy baax xaw a changé hygiène de vie xaw a déménager. waaw moo tax tey daal ñu ànd ak sunu grand Moundiaye ànd ak gars yi wax dëgg yàlla waa Malika yëpp. gis naa daal gis naa fi armée am na yeneen champion ah. moo tax tey ñu déménager ñëw fii. parce que yéene def hygiène de vie. hygiène de vie am na solo lii mooy hygiène de vie. waaw naa la ngay làkk say tubaab de loo làkk nga ne. bonjour tout le Sénégal seulement Guy 95, le 15, 15 mois 95 à Malika. Mais l'Auto TV, vraiment, vous êtes de la un site. Mm. Parce que Babacar, moi, si j'arrivais départ ici, je n'ai pas appelé toi. Mais toi, ton réfléchir, toi tu connais, Guy 95, elle est à la, la grosse. C'est ça le professionnaliste de journaliste. Parce qu'il y des journalistes, qui mm. si pour accompagnement chercher, chercher des informations chercher des informations non mais toi vraiment c'est ça moi première vidéo hmm. Arrivation V ok vraiment je suis très content de toi toi personne très gentille ana sa turando guy gi elle est arrivée ici ñëw na démb guy gi ñëw na fii ñëw na démb jugee na États-Unis ñëw mu ngi géejawaay guy gi mu nga gàddaay ñëw na démb vingt-trois heures ñëw nag ci anam bu garaaw ah waaw xëccoo maa ngi dem de. loolu dinañ ci wax bu soobee yàlla. boo xoolee combat yi gën a danger. waaw booy ñëpp ne à l'espoir lañ dañuy dem. waaw guy freiné leen. waxi Balla Diouf jooju noo ko gisee. non Balla Diouf moom lamb la ko nettaru ko moom licence am dañ koo yàq. lu tax ne gi lay bëral. lu tax kàddu gi. moom guy gi âgé la ñoo bëri. man dama rek guy gi. Balla Diouf waaw man Balla Diouf fii ma toog ni mënu maa yëngal. yaa wax lii. Balla Diouf guy gi du moroomam Balla Diouf na dem investir comme li muy def ci. ci mais est-ce waxul xam-xam. non dama la guy gi dama la jox ñetti exemple ba mu muy bëreeg lagrose non astafurlah ba muy bëreeg zarko boobu la zarko ceene ba bopp bi am ay dëj nga ñëw ba guy gi di bëreeg Siteu nga ñëw ba guy gi di bëreeg Ama Balde Bébé Saloum dafa dóor garga top 5 ñëw guy gi sempi ko ba ci kaw dóor ci suuf. rëg rëg na koo sempi. non rëg rëg général mi ñu ko daan. lutte simple. waaw mais lutte lutte simple ak lutte frappe ak lépp a ci am. rëg-rëg du dara daan ko tax na guy gi daan ko. mais guy gi du moroomu rëg-rëg. lamb la jour la boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar mais man de ma personne. waaw piscine bi sax ñeme naa koo teg ci guy gi rëg-rëg. guy gi éleveur la jàmbur la nag lii moom moomoo ko. armée armée sax tey mu ngi dund beneen dund. man nag mbër yi maar gëmuma woon ne dinañu yëngu ci yu mel nii nekk mbër yi ñoo gën a bàyyi ko nii baax na nii bàyyi ko nii maar gëmoon na pour man mbër yi ngém bu bëri entraîné ndeke mbër yi des fois ñu dem ci hôtel yi <laughs> gérer seen ba mu rafet wax ngeen dëgg bakkan de jàmm la bëgg su ko mënee am am na lu mu ne ci loo ne maa lay nuyu di la siyaare mbaa am nga jàmm di nuyu waa Leewtoo waa Leewtoo waaw TV yëpp hmm. di nuyu samay fans samay supporters di ñaanal ñëpp jàmm mais lii lii lii lii nu mu tudd nii lii ngeen di def nii waaw tey dañoo ñëw pour xam rek sangu nii léegi lañ fi ñëw ah ay 18 heures. ay 18 heures. waaw jógee benn baraag Malika rek ñëw. ak yëmbal ñëw rek waaw fas yéene sangu nii tuuti delluwaat. yow am nga adversaire defe naa. maak fëgale la. am nga mbër de. loolu baat ak tontu lay doon incha allah rabi. baat ak tontu mooy arbitre day soufflé nga daan ko. loolu nga wax ko dem ñibbi xool. yaa wax lii ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. fëgale ngay bëreel de day xeex day bëree de. xale ak mag la. ku jaay téeméeri màggat ak fanweer. waaw prix bu di jar xam nga ko. Ah. ba muy bëre maa ngi daara ja di jàng. moom fëgale may rampe ba war a bëreeg moom. no loolu rek sas la te yabuma armée armée yeeg armée yi barke Serigne yaa wax lii. maa wax loolu ak leneen. mais bi ngay ñëw fii ko àndal. man général guy gi ak suñ doomu nday mu njaay lañ fi seet si. waaw muy borom lagros borom Lac mu njaay. nekk suñu xarit jékki-jékki woo ñu ne ñëw dama bëgg ngeen ñëw fii ñu ñëw nii gis nga léegi nga ñu gis nii. waaw man kay yàgg des léegi laa leen fi gis. mais kon daal yéen ñu rek an raxul leneen. non xool ñu. <laughs> ah déet dafay <laughs> laaj xool ñu. mooy ànd ñibbi sax <laughs> yéen ah déet mënuñu ànd ñibbi fi laa leen fekk. ah ñooy ah, ànd ñibbi ah, ce que raxul. xam nga bu dee yow kese. waaw kay ba ah. am lagrose ngi suñu doomu daay ngi nii mu njaay. moo ñu jël ci otoom andi ñu fii. ah kon de kenn du mun njaay. man damaa xalaatoon ngeen kii yaa rek odo léero kii nii moom daa mel ni moo moom moo jiite contestant bi moom mooy général bi ab général nag moom defe naa ne mbër Babacar naka yëngu yi Babacar siyaar ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yeneen bi di gërëm sumay ñaari waajur di nuyu suma sëriñ si Ablaay di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak Kër Masaar buun àll ba ñaax waa montagne waa mbëbës di la nuyu Babacar yow it di la baalu àq te di la baal àq quoi di baalu Sénégal am nga jàmm. sant de moom nekkoo ci géew ba sottuñ lay butéel tey sa say kawas nga sol say carax. def sa kilot. waaw ñëw toog happy waaw loolu laa def de. mu mel ni beneen dund kon daal yéen xam ngeen saaru dund yéen mbëri kon. waaw lu mënta ñaax la. gars yi dañ jàpp des fois ñu naan mbëru dof la ak nangam sangam. non yii bokkuñ ci quoi. Hmm. vraiment yii bokkuñ ci. ndax ku ne xam na ni mbër noobul la man boog loolu laa jàpp keneen ku jàppe sa bopp dof loolu yow la na ñun mooy loolu noonu ay noobul lañ ndax nee naa la nit kuy génn ay junni nit di topp sa ginnaaw ndax benn nit kooku ku ne ko dof la yaakaar naa daa soxor. Hmm. waaw dof mbooloo du ta ànd ak dof. mbooloo du ànd ak dof non non. waaw. laax wax naa ko ci rëg-rëg ki nga xam ne moom mooy guy gi. Mhm. mu ne yow daan kon rëg-rëg jaaxalul guy est-ce que nga daan rëg-rëg yow na nag gi mën na koo daan. non waaw loolu waxu guy quinze la. yow la wax man man mbër laa Amadou wax ci benn mbër. man ci sama bopp laay wax man ci sama bopp laa fi nekkal. waaw non moom sumb nga sumb. waaw noonu la demee nag. noonu la demee sa sumb nag moom ñëpp nañ da ngaa naagu. ndax saa yoo génnee ne waaj naa la def nangam. non du naagu xool leen li ma weesu. man nee naa leen xale bu ndaw laa noo femme non film y a pas de maladie pire dire dégg nga ma. lu nekk sama kanam pour man maa ko mën muy tay di suba ba ginnaaw suba ak ku mu munti doon buñ jàppare buñ jàkkaarlooyee damay jàpp ne dama lay fël jàll loolu su ma gëm-gëmu bopp la man damaa dëkk Malika di doomu Malika waa Malika nekk sama ginnaaw ragaluma dara. ok ragaloo dara ragaluma dara ragal yab yàlla la. fan yi gis naa la ci ay tool yi gerte ngay fecc am na ñu ne sax gerte jàmbur kii dina ko yàq. yow foo jëlee tool. ak foo jëlee gerte loolu suñ dëkk la ñun ay village waa lañ. en ah, village waa nga. waaw waaw kaw kaw kaw kaw. <laughs> kaw kaw lañ boo xoolee li ma yor loolu saalum saalum yi xam waaw sox sox ngoos ngoos ngoos ngoos waaw ngoos ngoos tool yi di béy di sëgg ay ay yoo xam ne distance yoo xam ne bul comprendre buñ sëggee tàmbalee jël ngoos ngoos bi di ngoos hmm. boo siggee yat dalay dal billaay wallaay te boobu lañ gën a tuuti kon loolu ñuy def dañ koo xam da koo xam waaw dañ koo xam kon loolu saalum la waaw loolu côté saalum jàpp jaxaaw siin fan ci mu ngi woon côté jaxaw Siin. côté Jaxaaw Siin rek. waaw da nga fa am tooli gerte. du jeex. ah waaw. <laughs> wala tabaski gërëm la fa yóbbu woon. non man tabaski ñun ci tool yi lañ nekk de loolu moom suñu naturel la lu nekk si ñun.